ñu koy jaale kenn ku ne sa diggante ak sa mbokk muy sa ndey muy sa baay muy sa jabar muy sa mag muy sa rakk muy keneen mais loolu kenn réer loolu fonkul mbokk xooyalul mbokk dindiwul mbokk te it cofeel ci xol cofeel ci xol rek lay nekk dana moo loolu moo ne sama rakk bi fi jógee Sidy Lamine ñàkk na baayam ci juróom-ñetti at amul kenn suñu yaay dëkku fi amul fi ay mbokk suñu baay bàyyiwul am-am ñu sonn lool rawatina moom doon boobu ak fi mu wàcc liggéey juróom-ñetti at la yoo xam ne dem na ci bay liggéey di mën a tudd milliard bu dugg bu génn bu jëm ni te fekk ci jafe-jafe boobu la tàmbali woon lépp métti woon waaye bi ci gën markan mooy jamono ji nga xam ne Abdou Diouf jël na ko nommé ko ambassadeur Sénégal Iran ba mu jot ay lettre wara création dem mu am ñu jaxasool fii ñoo xam ne wax dëgg newoon naa ko mu jaxasoo ak ñoom ndax ay yàqkat lañ yàlla def nga tere ga terewul loolu am mu jëlee ci benn feebar bu métti boo ci kër gi yëpp nañ ko journaliste yi fa collaboré xam nañ ko ba loolu gàllankoor mu mënoo taxaw liggéey liggéey bi kamu mii jël ko indil ma ko ñàgg ni ma sarakango ñun dañuy liggéey léegi dafa feebar fajal ma faj ba yàlla may ma ca ndam ko liggéey bi continuer ba yegg fii mu yegg si waaye ñàkkul lu ca desoon ba tey mu ànd ak mitit yu bëree bëree bëri yoo xam da ko muñ ndax moom nekkuloon kuy njàmbatu dafay nëbb sax lu metti ci moom ñëw euh, ñi nga xam ne nag ñoo ko yàqaloon liggéey bi dañ koy isolé ci ñi nga xam ne ñooy mbokkam yoo xam ne ñoom ma nañ koo faj wala ñuy dimbali ko loolu dem na tey waaye nekk na victime loolu ma leen wax ndax amul benn nit ku gëm ne bàyyi ñi la gën a jege ñi nga bokkal léegi bàyyi te du kenn du ñaar fenn mënta taxaw ne loolu de tayeef la kon loolu ku ko def dañ la jéggal te xam ne àndoog sa sox mu dem ci loolu bi nga xam ne isolé nañ ko ba mën a jot ci yaramam ak sax lu raw loolu ñu ko dem ci liggéeyam mu mu defaroon euh, groupe de presse bi gënoon a brillant gën a noble gën a kii ci Sénégal ak sax ci Afrique ñu nekk fa ci isolement moo defal nii bul def nii di ko boole ak ay journaliste de talent ñu leen di dàq benn par benn di ko pousse mu endetté boîte bi ba tey jii ku ne xam ne boîte bi mënta fay ay borom bu kenn taxawul fay ko wala nga def ay aménagement ak banque yi mënu mënutu la xëy na sax ci li yokkoon mu ci mën a bokk mais damay wax ñooñu nga xam ne ñoo yàq liggéeyam yàq yaramam ba mu feebar ne buñ fekkee ne am nañ ndam tey fenn nañ wallaahi lu mu defaroon dañ ko defaraat ba yokk ko bu bu waat bi amee bor danañ ko fay ak nu mën a tol buy boobu muy fukki milliards dañ koy fay ay doomam wax naa leen ko duñu xiif duñu mar tama ne fi ku ci doon njàng na ko ne sa njàng danaa ko fay jigéen ñi danañ leen jox luñ dundee ba ba ñuy ténjee te bëgg naa lépp loo xam ne bàyyi na ko ci alali àddina ñu tasaare ko ndax loola ñu fi ne ñoo ko moom ñu jox leen ko ndax loolu la lislaam santaane eh, jamono yu ciis la ñu koy muñ ñu ko gën a mën a nuñ ko nuñ ko may confirmer ma waxoon ne fii may wax ak yéen jëmm ji mu ngi tukki di dem ca kawlax da nga xam ne fa ci saanu bu demee ñu def ko ci diggante ay magam ak bayam ak maamam ak yaayam loolu mooy li xam ne bëggoon naa ñu xam ko benn wuute itam amul ci biir kër gi man la ak samay doom danaa leen jéem a jubale àndaleeg ñoom d'abord ba ñu reconnaître ba kenn ku ci ne xam ne paternité bi ëppale ci ñi ci des am na mu ci wax sànq boo de sama papa sama papa ma ne ko deel wax suñu papa ndax booy wax ak ñoo bokkal bàyyi ni sama papa yaa ngi heurté ñeneen deel wax suñu papa danañ leen a jéem a jubale àndale leen ba ñu ànd benn baax lépp ñu maasale ko na mu gën a rafetee dëgg la lii la yàlla def waaye ku ne xam na ne ñu bokk benn biir boo xam ne ci lañ jaar ba juddu war nañu mën a bokk leneen lu mu mën a ci àddina te loolu mooy lii cosaan waaw ñoom yàqkat yooyu nag man Ahmed xalifa Niass danaa fayal sama rakk ci ñoom te billaahi danañ ko yëg kenn par kenn kenn par kenn ay naafiq yooyu yëpp incha allahu sama yet bi dina leen dal tooñ nañ Sidi Lamine rey nañ ko tëddee am jotu fàggale nañ ko ak i bokkam yàqu nañ liggéeyam te billaahi jàmbaar la moo ma gën a nekk moo ma mën gën laa xereñ gën a xam lu muy def te mu salaaj benn ndimbal ci man nanguwul ku ko dimbali foofu laay mën pour leeralal leen ndax euh, wax ak bi ci waxtu wi nekkul lu nekk aada ne nag euh, lii bariwul lu muy xew looloo tax ma wax ak ci teew waaw maa ngi koy maa ngi ciy dellu ajjuma gannaaw suba ajjuma tey ji àllarba li ci guddi fi mu ne nii koor bi mi ngi ci yoon wi ci yoonu Kaolack incha allahu ajjuma bu ñu julee tusbaar danañ ko denc ci penku jumaa ji ci fi xalifa bi alaaji ibrahima bi fi jógee ñu tëral rakam ci wetam kilif lépp lépp ñu yëkkati teg ko ci kanam ci loxo Cheikh Tidiane xalifa Ñas di xalifa ca Léona Ñaseen mu tegaat lépp ci loxo magam Cheikh Tidiane Ibrahim ñu bokk ko taxawee nañ ko daan taxawee ñun bu xewlee bu ñu ne Malick ñëwee ñuy jiital ko Medina Baye bu ñu xewalee bu ñëwee ñuy jiital ñu ndax ñun ñëpp duriyatun baaduha baax baadin waaw bi nga xamee ne son baay ñu ngi seen maam xalifa jógee na fi bàyyi lañ dem wooye sa Medina Baye génn ci nekk ay doom teg ko ci loxoom moo moo rootal boppam ndox jël ko indi ko suul ko Eh, waaw ñu may eh, doon tàggee maa ngi ci boole ñi nga xam ne mooy eh, waa kër Cheikh Ahmad Tidiane yi waa kër Sirmanul Habib di Sidi Abdul Moutalib ak rakam te ñuy samay jarbaat ak itam këri xaadir yi bàyyi ma ci benn muy Maka Kulibanta muy Nguraan muy waa kër taalibe suma maam Cheikh Sadbu muy taalibe suñu maam Cheikh Sidiya ñoom ñëpp ñu ngi leen ñu ngi leen ñu ngi leen ñu leen koy jaale di di ko jaale réew di ko jaale àddina bi di ko jaale lislaam di ko jaale tariixa ku ñu fàtte nag kenn ku lim juum waaye daal génnewuñ kenn dem nañ ba église catholique bi ñu wax leen ak temple protestant bi am ngeen am ngeen laaj ngeen laaj ko après ñu bàyyi leen ngeen saali seen xabaar waaw mu nekk ki nga xam ne moo di Ahmed